kër Cheikh Muhammadul Akhibou Ibrahima nias fi ci kër Assane Diassé di am mbégte bu baax a baax si ànd bi ngeen ànd ak suñuy programme xamna rek réaction talibé yi liñ koy ñëkke rek moy ki nga ni mo nii sa forum di lé ko kawlax ba fi ni suko défé rek kaddu yu ñëkke ci si dekbi. ñu xam sañ bi gannaaw bi ngeen accès fi tay ci dëkk bi ngeen fekk talibé yi mobilisé wu organisé dajé fi dajé ba am solo ñu tétto ko sëñ bi man kaddu nga am pour nuyoo ko mbokku téléspectateur. Ah, alaykum wa TV ñu di nuyu di leen di sant di leen di gërëm seen liggéey rafet na ñuy déparé Kaolack ba fii nii alhamdulilah ñoo nañ fii ci kër Assane dëkk Cheikh Mahamadul Aqib Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi ko ñaanal fan bu gudd bu ànd ak wér ak wér le mucc ak mucc le macha allah alhamdulilah mbokk yëpp daje nañ fi taalibe yëpp macha allah daje nañ fi sëriñ bi ñu ngi ko sant bu baax a baax. bi nga ñëwee gis mbooloo mi ak ak nim mu toll man ngeen yëg. ah yokkute rek wallaay yokkute rek at bu jot mu gën a at bu jot mu gën a yokk wallaay xol yi fees na del xol yi fees na del alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax ñaan yàlla ñu fekk ko at yu bëree bëree bëri ci barke Baye barke Cheikh Amadou Aqib Hassan Ndiaye la macha allah waaw. jërëjëf si noonu rek la ñuy. sëñ bi tey ñu fekk leen fii si dëkk bi tur bi. Baye Diassé Kër Assane Diassé. Baye Diassé. mbokku telespectateur yi batay rek ñu wëy euh, talibé yi niñ dundé ngan gi rawati rawatina recevoir bi nga xamantene ni dalal nañ ko euh, sëriñ bi Cheikh Mahamadul Axibu ibrahim Niass dugg si fi ci kër Assane Diassé mbolo mu tak top ko sëriñ bi tour bi Baye Diassé kër Assane Diassé euh, ban kaddu nga am rek pour joxé ko ganna bi nga xamantene sëriñ bi dik nga ak gis nga mbolo bi ni tollu di sant yalla ci siyaare bu baax di leen wax ne le Cheikh Sëriñ mbay waxon dafa waxon ne nañ nañ takka suñu ñak taw wagu jëm ci yalla mune ne jëm ci yàlla du mën am barka que bëggoo jëm ci sëriñ bi kon sëñ bu ñu koy sopp di ko bugg di farseena, dundal juma xam ji di ko liggéeyal di jox hadiya di siyaré fonko lol top top ci kom waaw di jëflanté mom parce que comme suñu bàyyi daan jëflanté mom li yëpp bo gisé ñu am ko yalla ko fayé suñu mag ñi ci ndax dañu bëggoon di liggéeyal di dem di fekk ay gàmmum di fekke ay firmal quraanam di fekk ay waxtaanam di ko fonkoloo di ko liggéeyal di ko defal tool di ko bayal di ko siyaare di déglu gàmmum yi di déglu ay firmal quraanam di déglu ay jàngam di déglu ay gàmmum topp ko bugg ko lool ba yàlla fayee ñu jumaa ji ak sëñaari bu moo indi fi jumaa ji bugg dëkk bi lool kere jumaa ji nag kere bi ko imaam asanaay ta daloo wax dénk am na lum ñu dénk wax na ñu ne jumaa ji sëñ xaaxe bu mu ngi koy mu ngi koy nirleeg jumaa yi bàyyi ji këram gii mu ngi koy nirleeg kër bàyyi ci na ngeen duudal jumaa ci wasif waxtu yu juróom ak jumaa ak sikaru sajjuma ak wirda ak wasifa ak jàngal quran di la ñu dénk ne mu ñu wax ni ñu ne jumaa ji bu ko fi sëñ xaaxe bay tabax dafa bëgg ngeen dundal ko su ko wóoroon ne bu ko fi tab dundal tabaxee kon du ngeen ko dundal kon du ko fi tabax ñu ñu ñaan yàlla yàlla dimbale ñu bañ mën koo dundal mën a topp sëriñ bi di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem di ko liggéeyal di ko xidmaal di fonk ko lool fonk jumaa ji fonk këram gi bugg mboolem tàll ba yi bugg julli mboolem bugg mboolem sëriñ su baax si lii ci lañ nekk ci lañ fas yéene def suñ jeexal suñ dund gi su ngeen fas yéene seen dund gi sëñ bi dikki ngeen dalal ko dalal ba am solo tey gis nañ ne mbooloo mi gën naa yokkaat te xale yi gën na nañoo mobilisé wu pour tert ko gannaaw bu ñu ko tertoo ba pare ku am gan loo koy digal rawatina waa dëkk bi ku am gan li koy digal mu mu teral ko man de damay ñaan ne ñetti yëf laa ñaan ci siyaare bi waxtu jublu see tek dugub tek xaaliss seral gan ñi teg dugub ñetti saa yi lay ñaan bu siyaare bi jublu see waxtu nek tek dugub tek xaaliss seral gan ñi loolu laa bugg nag ñëpp loolu loolu ñaan yalla ñëpp ñun ñëpp waa dëkk yëpp yalla dimbale ñu ci loolu bañ man bañ man ko def nañ ko nañ ko bëggee fonku gëlé sëñ bi fonku taxna tay eh, bu ñu suba la bës bi maam Alaaji Muntaxa di seen sëriñ di seen soppé jitu si lolu taw ñun ñun ñu ngi kontaan ci lolu di ci sante yalla di ci gërëm sëriñ bi ñu ngi kontaan ci lolu baax waaw ñu ngi sant yàlla tey dénk suñ bopp tey dénk waa dëkk bi ak tund bi ñu jéem a gën a téye sëriñ bi gën gën a seet ci tànk yi suñu bàyyi taxawoon ndax suñu bàyyi ñoo ko fi dalaloon bugg ko lool di ko liggéeyal di ko xidmaal di ko xormaal di ko teral lii ci lañ fas yéene nekk ñu itam jërëjëf mbokku téléspectateurs yi si noonu rek laay wéyalee kenn si euh, keneen si borom xam-xam yi kilifa yi nga xamante ne ni dëgg-dëgg tertu nañ Cheikh Mouhamadul Aaxi bu Ibrahima Niass si teertu yu am solo si liggéey boo xamante ne nii waajur Mawlana Cheikhul Islam Waaji Ibrahima Niass Baye moo ko fi nekkoon dund ko ak taalibe yi maam yeeg maam mataar yi ba tey loolu moo wëy mba tey kilifa yi daat mbëggeelu moo daanaa Cheikh Ibrahim jox ko Cheikh Mouhamadul Aaxi bu Ibrahim Niass yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér waaye yàlla boole ko ko Assane Diass barke des fi bu baax a baax sëñ bi gannaaw bi ñu leen fekkee fii nii Cheikh Mouhamadul Ibrahim Niass ñëw ñu gis tert bu am waaye tamit ñu gis tamit taalibe yi niñ gën a mobilisé wu at mu jot muy gën di yokku ban kàddu rek moom ngeen am gannaaw bu sëñ bi agsee ak mbégte euh, euh, ñu ngi bég ñu ngi kontaan ñu ngi leen di dalal yéen si TV di ñaan yàlla ci barkeeb Baye Niass barkeeb Cheikh Aqib yàlla yokk seen télévision bi heggale ko foo xam ne ëpp na seen njort ci barkeb Baye ci barkeb Kossy parce que foofu la faydu bi ballee ball ga faydu bu ballee Kossy te booba mu doon mbooloo su ndaw dañuy ndaw dégg naa Baye dajale leen ci benn néeg boo xam ne 4 mètres la ne leen da ngeen dej àdduna bi te boobu gëmuñ ko woon maa ngi ñaan yàlla ci barkeb loola yan na seen télévision bi mel noonu ci barke Baye ni faydu bi yaatoo ne faydu bi tasaaroo yan na ko Kossy TV tasaaroo xe barke Baye barke Cheikh Tidiane ah, gannaaw loolu ñun waa Kër Hassan lañ waaye nag yàlla dafa dogal ñu ngi toog Gàmbi Gàmbi lañ joge ñëw ci ziyaara bi ah, sëñ Axibu dafa am mbooloo moo xam ne ak mbooloo mi fuñ mënte ne daf leen takke ci birru wal islaax ñu muy eetu birru wal islaax birru mooy lan mbaax ak xéwénal mbaax ak xéwénal ñun nag ñu toog Gàmbi représenté ko fa alhamdulilahi rabbil alamina euh, daan nañ ñëw at bu jot euh, waaye alhamdulilah at bu jot rek dafay gën a yokk mbooloo ma da gën a bari mbooloo mi da gën a yokk ci góor ak jigéen ci taalibe ak ñu dul taalibe ngir lan gis nañ ne saa yu ñëwee Kër Assane lépp luñ buggoon mébét ko ñaan la ko suñ delloo danañ ci teg seen bët ñooña danañ ñëw danañ indi ñeneen loolu nag moo ñu xiir ñu góorgóorlu sëñ aax bu nag yegsi na ci Kër Assane tey alhamdulilahi rabbil alamin euh, dafa am ñoo xam ne Eh, gis nga lijaaba lijaaba eh, dafa nekk ñaar lijaaba ma'i ak lijaaba saati lijaaba ma'i mooy waa ji toog te xee turu yàlla da ko liggéey ba yalla xëyu jox ko lam soxla loolu lijaaba ma'i la am nga lijaaba ma ismullahi alladi istaamalta bihi ak turu yàlla wi nga jëfee am na lijaaba boo xam ne lijaaba saati la ci sa jëmm jilay ne loo laal mu barke foo taxaw mu barke loo wax mu barke loo ñaan mu am jarul sax ngay bind dara na ñëw tàllal la rek nga ñaanal loolu nag la seen aaxi bu am gis nga boo xoolee pàkk bi tey bés ba fi sëñ aax bu di jëkk a ñëw booba dara nekk fi fii nii ñu toog nii tey booba dara nekku fi wanag la hoon ay gajji ay ñax bi ko suñ mam ñi suñ mag ñi dalalee ci ndigalal magam xaaj Ablaay yal na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp jéggal leen dara nekku fi seetal léegi kon nga xam ne li jaaba saati ñëw na tey lépp ngi fi jumaa jàng fi te booba nekkut fi woon kër gang fi daara jàng fi te booba nekkut fi woon forage baa fi courant baa fi te booba nekkut fi woon booba ay teen lañ daan root de sonn léegi lépp ñëw na loolu li jaaba saati bu sëñ bu am moom la li may digal sama bopp nag dégg digal mboolem taalibe yi fii la nit de jëriñoo fii la nit de yàqoo yar ak teggihin lañ xamee péye bàyyi képp ku bugg a jëriñu yaa ngi jëriñoo yar ak teggihin kii borom xalal la kutum nañ ko xeew tëj gis nañ ko ba sonn kii borom daraja la kutum nañ ko tëj gis nañ ko ba sonn kii borom xam-xam la kutum nañ ko tëj gis nañ ko ba sonn waaye kii dafa am yar ak teggin moo tax ñu kutum ko tëj doo ko mës a gis mukk te bàyyi ba muy ta ba muy ñëw de xam ne faydu bi dana ñëw te kenn mënut a lu ma yar ak teggin ci la jàkka taalif ruhul adab nga xam ne wax nañ ne maam Cheikh Rafal radiyallahu anhu moom mooy jëmmi ruuxul adab kon nag yar ak teggiin lañ ci soxla ci sëriñ bi ak ganam ñi ñëw ak ñu mënta doon yal na ñu ko yàlla defal defal ko bëpp jullit ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal fekkee nañ ko ren yal nañ ko fekkee ay xat yu bëree bëree bëree bëri ànd ak yokkute ci zahir yokkute ci baatin lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg na ko yal ko ci yàlla jàppale yal na ko ci yàlla dimbale lépp loo xam ne talibay njabot gi heena nañ ko pour defal ko señax bu yalla yalla may len warsag ak wér ak katan bañ man ko defal señax bu duma mug lumay ma ngi len di sant benen yoon de nuyu nak Medina yeb de nuyu Medina yeb de ci jital khalifa bi Cheikh mohammed Mahi jërëjëf xol bi mo mo fess rek euh, moom nee na du xalifa xaadim la xaadimul umma waxut xaadimul fayda de xaadimul umma ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan ak wér ñu ngi nuyu suñ imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé di ko ñaanal wér ak fan ak mboolem njaboot ak Cheikh Ibrahim ci góor ak jigéen seen mbokk la Baye Diassé ci Gàmbi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf lu fees ci xool feeñ ci jëmm gis nga bi mu duggee si xaadimul umma di Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Ibrahima Niass yal na yàlla yokk fanam bu baax a baax euh, lii mooy wane ne liggéeyu Kossy TV dëgg-dëgg euh, jàll na fu ne si àdduna bi ndax dëgg-dëgg gis ngeen euh, borom xam-xam yi nga xamante ne nii yëkkati nañ joxe ko fii si Cheikh Mouhamadul Axibu mbeugel gum mu ci Mawlana Cheikh Ibrahim ba tey dëkk bi am ko ci Mawlana Cheikh Ibrahim ba yalla bolena naa Cheikh Mouhamadul Axibu di mi ngeenel way di jëm li jaba de ngeen diko suñu papa bi jóge ko gambi waxe papa lo ci yokkat da nga ne dama ci yokkaat moy tarikh tarikh ci yi ci sëñ Axibu rek manam ren la fi am ñen fukki at 82 la fi dal ren moy 2022 moy ñen fukki at buruk di itam ñeent fukki at yoo nag liggéey na fi liggéey bu rëy danañu kër gii 83 te dal ubbil nañu daara ji 84 te dal nañu jumaa ji 92 dal nañu Casa Touche Petit bii 93 dégg nga 2003 astaghfirullah 2003 2008 la ñu ubbil jumaa ji muy jaamukaay yàlla bu mag gënakaanaan da mus ñu see jaamu yalla ku bugg a jaamu yàlla nga foo jaamu yàlla ñu ngi sant yàlla ci loolu di leen ne taarix bii man jàmbu xeebu bii maa ko ci teg jërëjëf jërëjëf si noonu rek lañuy ñuy liggéey bu si noonu rek la ñuy wëyalee liggéey bi lenn si kilifa yi nga xamante ni rek ñu ngi si biir dëkk bi seen réaction gannaaw bu xalifa euh, gannaaw bu euh, kilifa gi wàccee muy Cheikh Mouhamadul Axibu Ibrahima Niass yéen kàddu yi mbégte contentement moom la taalibe yi am ma dalalaat keneen rek si euh, kër gi waaw jërëjëf euh, si mbégte ak contentement bi nga xamante ne nii tudd na ko euh, li ma ko waxee sànq rek xool bi dafa fees ndax muy buy fee si pay bi rek xool baa ngay dem moo tax jëmm ji gis ngeen ni mu soppeekoo si saase waaye loolu rek mu war na nag ne Cheikh Mouhamadul Axibu euh, ni ko maanaam Cheikh Ibrahim di defee waxtu wu ne Medina doggitu resam dikaat na fii tey baawaan fi nga xamante ne moo nekk Assane Diassé waaye ëmb Gàmbi ëmb fépp foo xam ne rek tund wii ni tey ñu ngi nooyee Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla na ñu ko kilifa gi tey bu ñu la dalalaatee si Kossy TV eh, gannaaw bu Cheikh Mouhamadul Akhir bu egsee ban mbégte rek moom ngeen am si egsi bu egsi fii fan nga jógee ko ak bi man maa ngi jógee Kulaar soose maa ngi tudd Oustaz Kabiru Kambi kontaan nañ lool ñun waa Kulaar yi parce que sëriñ Akibu Kulaar bugg na ko ba jox nañ ko toolu ëpp na fukki at taalibe di ko bay eh, ba tey taalibe yooyu ñu ngi Kulaar ak Kër Assane ak baariya seen njiit bi muy suma baay Adama Diba taaw bi mu ngi fi mu alaay nu sa Diba Kulaar mu ngi fii fu ñu toll nii ñëw na maa ngi ko gis ci benn ker bi moom mooy mag ji moom eh, baay eh, Serigne Akibu Niass baayam muy eh, Cheikh Ibrahima Niass amoon na fa toma ñu ngi wax ne Baay Niass Jaadama Kulaar Soose mu ngi foofu ñoo ñëpp ay taalibe lañ bu ñu dem Madina Baay Gamo dañuy wuti matta ba mu bari ñu yóbbu ko foofu depuis jamono suma baay Adama Diba ba léegi alaay nu sa Diba mu ko def depuis suba ñu ngi sentu sëriñ bi sëriñ Akibu Ñas boo xam ne Gambia yëpp dégg na ko Sénégal yëpp dégg na ko ak alaaji Akibu Ñas siw na lool moom bokk na ci loo xam ne doomu kalifa général Baye Ñas bokk na ci wali bokk na ci kilifa yi bokk na ci borom taalibe yi parce que wax dëgg yàlla njiitu bu mag woon man bu ma ñëwee Madina Baye gisanta moom ak sama xarit Basir Diba ak euh, Seeku Njambu Touré kër Burama Jaara keroo ñaanal nañu lool lool lool lool nee na ma oustaz Kabir bu soobee yàlla du ngeen sondu te ba tey sondu wuñ fu ma jublu fu ma waaree rek sama poos yi day pees moom moo ma ko ñaanaloon sëriñ Akibu Ñas ba tey fàttewu ma ko kon lu ma gisee kër Assane Diassé démb maa ngi jógee Bambombe kër kër Bambombe gamo bi ñu teeru seen sëriñ waaye kër Assane Diassé lu ñu teeree seen sëriñ yi dégg dégg dégg mbégte bi dafa bari xale yu jigéen yu jàng yoo xam ne fii lañ doon jàng ñu ngi sigar ci araab di daje di ci yoon bi di soli soli yu baax jilbaa bi di di topp mag yi noonu ci góor yi jigéen yi yi ci ñooñu ñëpp ñu ngi taxaw Thierno Alassane Ndiassé jublu penku xaar benn jëmm boo xam ne mooy wali la xalifa la ci tunt bi mun Serigne Akibou Niass boobu doy na kontaane kontaane na ci loolu kon mbaadi mandinkool naa la mooy laalu suma mbokk soosé léegi ma wax ak ñoom mbaadi mandinkool naa la mooy laalu télévision fi la jàng mais yàlla ka bota nang ka bo télévision nu mu tudd Kosti bi mu ngi jógee Kaolack e, Medina bay ci Medina Baye e, njoboot bi ñu ko indi ñooy ñu ngi ànd ak euh, télévision bi ñooy ñëw fi Kër Assane Diassé man Oustaz Kabirou Kambi maa ngi taxaw Kër Assane Diassé tey Kër Akibu Niass di leen waxane mbaɗiŋol mba kontona ngal tentu ngal jeeyi dayira men botanan kerwan ibe jang baɗi bo kerwan gambia dayira men botanan mbariya ibi jang dayira men botanan kular social ayinu sadiba ma ñaton koti anin kambi ibe jang basir dibañol bele délégation nata jang dayraɓe mboto kiramadi guenar sukoto iɓe jang iɓe nata mo kilingam alaji akibu ñas kalifatu général e eh, kirasan diasa fi ak medina baye dayraɓe mboto ker seedou ba aɓe jang ker ngor dayira aɓe jang ker matar dayira aɓe jang iɓe nata e eh, kirasan diasa ñingamol la camen ila dayira aɓe jang ker burama jara fele nga nyaati li ibrahima njaay la ker burama jara ko le ni la daira mol be jam musol jang afele nyo boto kana be tembo men nyo boto nan fele sere dokan iba sawna na moro en kana jang moro na la talibolu nata anala delegation nata musolo nin kewloto kana kira san jasa jang kana fo fene dan fo la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu wa sallam karu kila nyima sallallahu alaihi sallam kala wulu kidimandi wo mu kukum ma bal muhammad sallallahu alaihi wasallam kuresin kolem kilar ya molem alala e ya ki kana molu kan yar e kanolo diala war ko ano ko karanjang ka mo ke jang wakuma yata bak ni aje kuresi suratu kuresi fota kila sallallahu alaihi wasallam fi samanti alam ala ya fa kila yako li ila fi kuresi ila fihim rihlata sita wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi yatamahu min ju'in wa amanahu min kawfi ñim bumba même mu jama bati ko mario batu wakuma ta bak akibu akibula do ko munet ka molu londi alala ka molu karandi ka duwa ko molien wo duwa nak wolbe kering woto eh, na television tiyo yo no tudu borom television yow yaay Moussa noo santa Moussa bi tey jógee Kaolack Medina baa ñëw bee fii Kosti bi eh, man kabiiru Kambi maa ngi dëkkee Kulaar Socé arrondissement Toubacouta comme de Kër Saalum Diané région Fatick euh, Socé la maa ngi leen nuyu di leen gërëm mbooloo mi maa ngi leen nuyu Moussa jërëjëf Moussa jërëjëf mu ñu ngi sa gannaaw allah Cheikh Mouhamadul Akhibou Ibrahima Niass sa liggéey rafet na yal may la fan bu gudd lool bu ànd ak wér dégg ngeen Kossy TV international si bépp côté rek lay ñëwee waaye dégg ngeen suñu mbokk soose yi yooyu tamit ñu yëkkati si kaddu yu am solo yooyu ak kaddu olof dëgg lii mooy wane rek ne liggéey bi am na solo lool euh, ngi leen di bégee bu baax di leen ñaanal yàlla fan gudd gudd gu ànd ak wér di wax rek ne euh, réaction taalibé yi gannaaw bu Cheikh Mouhamadul Aaxi bu Ibrahima Niass wàccee fii ci dëkk bi taalibé yi kontaan nañ te bëgg nañ loolu kon nag Kossy TV ni la koy defee nan la taalibé yi dundee ñëw bi nga xamante ne ni Cheikh Mouhamadul Aaxi bu Ibrahima Niass wàcc si na fii barke bi ak ngëneel gi mbégte gee kontaante gi sëñ daara gannaaw bi la fekkee fii ni tur bi Ibrahima Sow sëñ daara gannaaw bi la fekkee fii tey tur bi Ibrahima Sow mbégte moom ngeen am gannaaw Cheikh Mouhamadul Aaqib wàccee fii nii. Euh, kontaan nañ lool tey ñu ngi sant yàlla bu baax ci bés bi bés la boo xam ne àddina yëpp ñu ngi ko doon fuglu mu nekk dëkk boo xam ne placé nañ pour wax ci ndax daara ji première génération bi fi ñekk a sanc man ci laa bokk maag doomi sëriñ bi ku ñu wax Baye ak ku ñu wax Aminta mu ngi Amérique ñoo doon jàng fii ba fii yëpp dëkk bi ay néegu ñax la waaye tey ku fi ñëw xam ne dëkk bi soppeeku na loolu nag mo fi am kër mo fi dëkk mooy borom dëkk bi ci baatin kooku mooy cheikh Mouhamadul Xaaqib ibnu cheikh Ibrahim ibnu maam El Hadj Abdoulaye Niass di doom yaa as daoud mi nga xam ne soxna maam cheikh Ibrahim la. muy koo xam ne kuñ xam la Baye moo ñu wax kan la bi muy wax doomam mi di leen tagg ba yegsi ba ci moom daf ne ko ayu al Aqib yow Aqib Chamir jógal nga wogu góorgóorlu forlu ci xam-xam ku mel ni sa ndijaay El Hadj Mouhamad jamono nay na indi ku mel ni moom. kooku Cheikh Ibrahim moo ko yaxal ci ay mbindam boo demee di nga ko fekk dëkk bi mooy kër Hassan Diassé 1986 laa fi ñëw ba 90 ba 92 ma wàcc alquran ci oustaz gu ñuy wax Aliou Guèye sëriñ bi daan fi ñëw àllarba bu jot alxames ajjuma mu xëy dem Medina weekend bu nekk fi la ko daan def loolu yàgg na du tey waaye tey ku ñëw fi xam na soppeeku na wax naa la léegi ne la ay ku ñax lañu woon dëkk bi léegi dëkk bi yëpp soppeeku na ay étage ak terrasse jumaa jaa ngi nii daara ji soppeeku na dëkk bi soppeeku na courant bi ñëw na ndox mi ñëw na loolu yëpp ci barkeeb ngëneel ak mbaax ak siru ak mbóot cheikh mahamadul haqib la ko yàlla indee fii cheikh haqib ni la koo xam ne doomi cheikh ibrahim la doom la ci maanaa doom la ci za doom la ci baatin doom la ci madd doom la ci maanaa mooy koo xam ne ku noppi la waaye jëmmi alquran juy dox la ñun ñii di wax ak yow saa bu ñu waan ci daara ji ëppoon na téeméeri nit waaye ci yitteem ci bëgg alquranam daan na commencé kenn par kenn ñëw laal sa bopp teg loxo ndey bi man mi def na ma ko ne la foo toll nga tari ba mu yàgg mu dem ci keneen nu la ko daan wëree ba daara ji daj weekend bu jot nu la ko daan defee nga xam ne kun ubbi wutoon daara ji rek jël ay jàngalekat bàyyi waaye da daan ñëw di saytu njàng mi nekk mu fattisu daara ji nekk inspecteuru alquran kenn ku ci nekk mu laaj foo toll su baaxee mu ne baax na bu baaxul mu ne defaraat leen lii di ñuy yar ci liggéey ñu amoon tool yu mag ñu ko daan bàyyeel fii mu fi daan ñëw nit la koo xam ne mënuñoo wax ci moom xanaa di ko ñaanal yàlla guddal fanam yool yàggal ko fi xeeyow na ziar ndax ku si ku sa wilaaye mat war nañ laa ziar te man sax danaa xaddam naahu képp ku ñu liggéeyal ñu jiital la loolu Soufiane kiy wax te moom liggéeyal na sëriñam di way juróom waaye moom jaay na doom jëndee ko taalibe moom du doom yi bàyyi waaye moom taalibe bàyyi la liggéeyal na Cheikh Ibrahim teel na mokk alquran ci riwaayatu Warsh ci diir bu gàtt alquran yëpp dundam la ni ko Cheikh Ibrahima daan nafaree commencé samedi ba ajuma mu jeexal commencé waat loolu ñu alxaalu yëg di wàcc باي وحبنا فلتج عن الحفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم شوقي وهبي فيك لا يسفي سوى هلولي وارتحالي فيه Cheikh Ibrahim daana jàng alquran juróom-ñaari isib di ko xool su guddee mu tari ko semaine bi daana commencé ajjuma semaine bu nekk daan na am ñaari kaamil bii da koy xool ci bëccëg bu guddee mu tari ko daan na xat sax wax sa foofu ne ko taxalal ñu génn ba Kaolack mu dem tari su bon bi juróom-ñaari isib yi mu dal di ñëw te ñëpp dañ ko soxla woon xaddina yëpp soxla woon ko te ñaari waxtu la daan nelaw ci dundam kooku nag dafa ko doon na ci way juróom mbuutu alquran la imaam la ci Medina Cheikh Ibrahim borom xam-xam la doomi baay la ku teey la ku tabe la ku baax la ku mandu la ku jub la ku rayukaay la ku xam ijaaba la ku yàlla nangul la ku ñëpp bëgg la borom xabbu la borom daraja la ni ku baax la borom mbóot la ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yàlla nangu siyaar bi ñaanal yëpp di la ndokkeel di la ñaanal yàlla yaag seen télé bi yàlla yokk ko mu bokk télé yi gën a siiw ci àddina bi barkeel seen liggéey bàyyi gërëm nangul seen liggéey ngeen ñëpp nekk di ay taalibe ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la sant di la gërëm dégg nañ sa tour dégg nañ sa liggéey fu ne ci ci internet bi ñu baax ngeen ñu disponible ngeen ñu jox xaq faydu bi ngeen fu siyaare am na ngeen fa taxaw yalla yalla jox leen moye ba ngeen doyal ba ngeen bokku ci télé yi gëna a ci adina bi ba nga xam ne naan Kossy TV comme ni Cheikh Ibrahima siiwee comme ni Cheikh Tidiane amé barké ak yonentu Yàlla mom ak Kaaba gi yalla na seen télé bi mel ko Ibrahima Sow moo doon waxtaan ak yow jànge ci daara ji 1986 ba 92 kon li ñu wax xam nañ ko euh, ba 2022 Euh, euh, waaw ñu ngi ci yeneen di dëkk ci yeneen di yëngatu waaye ñu ngi ci ba léegi yor internet waaye fii moom liñ fi xamul kenn xamul ko fi ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Kossy TV mbokk internet yi lii mooy ñëw gi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadoul bu Ibrahim rek moom mooy waaye gis ngeen ndaw li ko waral si Kossy TV tey mu ñëw muy Cheikh Mouhamadoul Akhibou bu si buntut nga xamantene ni moy Cheikh mam Alhaaji Muntaxa ndaw li nga xamantene ni nii ak bëgg yalla ak bëgg dooma adama yi ak liggéey Cheikh Ibrahim rek mo nek liggéeyam mam alhaji muntaha ñu leen dokkel di la ziar di la ñaan yalla fan bu gudd bu and ak wër ñu and ak yeen rek ci ngan gi mbokk mbokk internet yi mbokk téléspectateur Kossy TV comme niñ ko waxé rek ki nga xamantene rek si biir kër gi niñ ko mandargalé Eh, tey suñu egsi fii tey ci Kossy TV si buntu Cheikh Mouhamadul Akhib Ibrahima Niass di Cheikh Maam Alaaji Muntaxa yal Yalla may ko fan bu gudd bu and ak wér yitteem ak bëgg-bëgg mooy yok l'islam yok diine way waxtu wo nek rek bëgg bëgg moy tassar l'islam ba tax tay ji Cheikh Mouhamadul Akhib ay buntam yaatu na ba ñu la neem ngeen dokkel baax baax bi di la wàccee sa way tay sa kilifa sa señ sa lepp ñew ban kaddu rek mom nga am tay ji ni pour dalalee ko talibé yi alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan fu ñu mën di nekk ci àddina bi nga xam ne ñooy seetaan eh, ñooy seetaan télé bi di Kossy TV ñu ngi nuyu mbooleem ñi seetaan fu ñu mën di nekk di sant yàlla bu baax ci bés bi nga xam ne bési sant yàlla la ndax dañ fee dajee ñun ñëpp ngir ñëw di ziyaare wëllu yàlla bu mat wëllu yàlla boo xam ne ak wilaayaam képp koo xam ne wilaaya nag amul màndarga waaye képp koo xam ne yàlla dafa na sa xol rek boo gisee da nga xam ne kii wëlliw yàlla la ndax yàlla moo ne wëlliw mi mooy ñi nga xam ne ñoo ko ragal te amul sikki sàkk ne cheikh bu ku ragal yàlla la ku jub la ku màndu la waaye tamit dundam yëpp yàlla la ko jox moo tax tey ñëpp jaami yàlla yëpp tey jugéen nañ fu nekk ñëw di ko ziyaare ndax xam nañ na ko xam nañ ne moom ziyaare ko dafay tolloog ziyaare baay ndax doomi baay la dogati resam la te ku baay bëggoon la ku baay fonkoon la eh, ci màndarga yu bëree bëree bëri yoo xam ne buñ ko doon wax tey dana guddal dana guddal jotaay bi waaye daal li ciy tegtal mooy jaam yàlla yëpp tey ànd nañoo moom jugee Medina li fa jugee ci ay oto ak ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll loolu yëpp dafay tegtal seen mbëggeel ci Cheikh Ibrahima Niass ak mbëggeel gi ñu am ci Seydi Moulay Cheikh Mouhamadoul Aaqib waaye ba mu ñëwee ci dëkk bi nga xam ne ci ndigalal magam la fi ñëwee Cheikh Alxaaji Abdoulaye ñëw fi ba yàlla defal ko fi lim ko fi defal ba mu ñëwee fekk na fi mbooloo mu bari yëpp rek di wane seen mbëggeel ak seen cofeel ci moom ni xam ne moom ñëwam yokkute la ci dëkk bi te jëmm joo xam ne ku ko gis rek doo texaadi ndax amut sikki sàkk ne mag la bokk na ci ku waraaw tariqa bi eh, moom Seydi Mawlaa Cheikh Mahamadul Aqib yonent bi wax na nag inna lillahi rijalan man nazara ilayhim saida saadatan la yashqa yàlla am na ci góor ñi ñoo xam ne ku xool jëm seen kanam da nga texe texe goo xam dootoo texaadi gannaaw amut sikki sàkk ne Seydi Mawlaa Cheikh Mahamadul Aqib si ñooñ la bokk moo tax tey ñëpp génn nañ pour xool jëmm jooju rek nga xam ne ku ko xool amul sikki sàkk ne jëmmi Cheikh Ibrahima Niass nga xool ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér bi jaay rasulillah waa ñi dal rek ànd ak dal ànd ak te ànd ak yar gu mat sëkk ndax foo ñëw war faa jëriñoo waroo faa yàq waroo faa yàqoo te am na yoo xam ne boo ko defee dana indi yàqute comme daal li ñuy denk mbokki taalibe yëpp di ci jiital sama bopp mooy nañ ànd ak dal bu sëriñ bi di génn dañ ànd ak yar dañ ànd ak ànd ak cofeel ak mbëggeel loolu rek moo ñuy jëriñ ndax fii dañ fay ñëw pour jëriñu bàyyi nañ suñ kër yi bàyyi suñ doom yi bàyyi suñ lépp xuus manding àll bi ci waxtu tàng wi ñëw dara waralu ko rek loolu jëmmam ji moo ko waral ndax moom amul sikki sàkk ne euh, ku ko gis rek da nga gis jëmmi Cheikh Ibrahima ni ma ko waxee woon sànq kon maa ngi wax taalibe yi ne leen fii dañ fee ñëw pour jëriñu kon nañ dal ànd ak yar te sàkku barke ak xéewal gu nekk ci moom kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér ñii xaar ay gan jugee Medina ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla indi leen ci jàmm bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne li des ci programme dañu ko àggali comme niñ ko tàmbalee ci jàmm yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñuy gërëm Kossy TV bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla yokk leen ci barke baay asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah bi kooku mooy suñu soppe Cheikh Maam Alhaji Mountakha taxa na yàlla guddal fan ni ma ko waxee rek xam-xam rek moo nekk yitteem waaye yar gi nga xamante ne nii ñu ngi koy gis waxtu wu nekk si doomu Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye di Cheikh Mahamadul Aqibu yar googu noonu moom mooy baawaan ba rek si njabootam gi di la bëggee bu baax di la ñaanal ñu commencé si bisimilahi rahmaani rahim eggale ko si alhamdulilahi rabbi alamin seede yu am solo yi nga xamante ne taalibe yi seede nañ ko biir kër gi si loolu yëpp rek ñu la koy ñaanal yàlla waxtu wu nekk rek muy nekk euh, euh, waame boo xamante dafay dem si taalibe bàyyi yëpp rek barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa ñu jeexalee kenn rek si ndaw ñi nga xamante ne si sëriñ bi kilifa yi ànd nañu ak moom boole ñoo ak moom dëgg-dëgg mu jël mu liggéey ñu si yoon bi liggéey bu am solo euh, bàyyi si gën naa buñ la fekkee fii kenn du présenté Kossy TV waaye rawatina si buntu kër Cheikh Mouhamadul Akhibou Ibrahima Niass yan kàddu rek moom ngeen am pour daralee ko taalibe yi ak bégalee leen ko ñu nekk si biir réew mi ak si bitim réew di leen seetaan alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa xabibina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum ihsan ila yawmi din ñoo ngi sant yàlla bu baax di gërëm suñ sëriñ mawlana cheikh al islam xaaji ibrahim ñas radiallahu anhu di amaat euh, contentement beneen yoon tey bi ñu yàlla mayee ñu am chance ñëwaat tey fii si kër Assane si ziyaara kan wali yàlla bu mat boo xam ne ak wilaayatum kenn sikku si sàkk ziyaara kan ki nga xam ne dégg na la ko baayam Cheikh al Islam Ibrahim Niass waxoon ca lettre bi ñuy jàngi yaa ayyuhal aaqibu shammir wan xadan yaakaar yitteem moo indi lii di ziyaara kan waliyu yàlla boo xam ne lépp luy maanal waliyu rek boo ñëwee si moom di ko fa fekk waaye di ziyaara kan di ziyaara doomu Mawlana Cheikh Islam Haaj Ibrahim Ñas bi kulli maanal kalimanat lépp lu doom di nekkee doom rek soo ñëwee Cheikh Mouhamadul Aqib di nga ko fekk ci moom ci tey ga ci yare ga ci jàngale ga ci yaamu yàlla ga ci jàng alquran nga xam ne moom la bàyyi radiallahu anhu ñaanoo sax mu nekk karaamaam boo ñëwee di nga fekk moom muy karaamaam néew na foo ko fekk mu toog lu may dinga fekk kaamil ci loxoom ci ñaan yàlla lépp moo tax mene kon ziyaara kan ki nga xam ne buñ ne doomu bàyyi la rek doomu bàyyi la bi kulli maanal kon loolu bés yu mel noonu yëpp bëgg ñu ko yàlla mayee te ñëw fii Kër Assane amuñ sikk sàkk ne ndollal dina am si képp koo xam ne rek ñëw nga kon ñoo ngi wax ne yulli ne lépp loo xam ne nekkoon na suñu ndab ñoo ngi taataan ci péyam ci ronam يالا دفتي باركة يالا فاي سني مبالي ما أجو بيجاه سيدي وجود صلى الله عليه وسلم ندخ دو شانس دو توجور لا يالا دمائي بس يملني قيوال يملني تيم دو توجور لك يالا دمائي غور يالا يب دجاه سي بينا تانت ولي يالا يب دجاه سي بينا تانت تونغا خمني مونو سي تانا ني دو ولي يلا ولا دولي وابي رضي الله عنه بينكو خيني كون دخ ولاية أمن ماندر غاني دني الولاية ليس لها علامة وإن كان لها علامة كان حسن القلق ولحسن العبادة عند كل مخلوق كون ما دام امون من دار غنام كون فيب لنجي سينتو موتاخ بيسي ملني بي في دجي سي طالبي لي مي دينك سون بوب ديكو دينك ييب نين ام تيغين تي مبولم كو خامن نيو سي بي بي نين ام يار نين فينيال سي تيغين اك يار ييب سي مبولو يو ملني جاب ني كيب كو غيس ريك ولي يالا لا damay dégg suma sëriñ cheikh mohamadul mahi sayd ali sisé di wax benn yoon boo ko gisaatee rek ormal ko ndax xamoo si diggante bi ñaata maqaama la si yéeg kon bu ñu yàlla mayee chance ñun ñëpp ñu dajee fi kenn si ñun xamante wu kenn xamu si ñun ñaata maqaama nga la yàlla baaxee kon bisu sant yàlla la bisu taar la ñoo ñaan yàlla mboole mébét yoo xam ne rek am nañ ko si rek yàlla ñu ko yàlla defal bi jaxe seydi wujud sallallahu alayhi wa sallama ñoo ngi gërëmaali tamit média bi seen couvrir depuis Kaolack ba léegi waa Kossy TV Malben Baye Universal waa IMTV yëpp depuis départ ba ba ni ñu yegg si fii war ak coono yi ngeen jàkk jàkkuwante yëpp di leen masawu coono waaye na liggéey yàlla moo am lool ndax dañuy wax ne lépp loo sonn rek njëriñ dina si feeñ ñoo ngi leen di ñaanal yàlla itamit coono bi ngeen jànkuwante yàlla na si njëriñ feeñ xidma bi ngeen tànn di si liggéeyal Baay radiallahu anhu yàlla na leen yàlla jox seen càkkute waaye si bunta Mawlana Cheikh Islam Haaji Ibrahima Niass radiallahu anhu mboolem luy taale bi di sàkku si ron sëriñam rek yàlla ni si yàlla jox cër ba gën a bi jaaye si di wujud tu bu ñëwee tamit yàlla nekk si yëglaati yàlla nañ ko attan ndax bëri na may goo xam ne yàlla dina ko may jaama waaye bu ñëwee du ko attan waaye ñun mboole may goo xam ne rek may nañu ko rek bu ñëwee yàlla nañ ko attan wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi internet yi defe naa am ngeen contentement bu baax a baax si ni ñu ko waxee woon euh, départu Médina Baye ba fii ci kër Cheikh Assane Diassé waaye nag Cheikh Mouhamadoul Akhibou Ibrahima Niass naal yoo xamante ne nii 82 ba 2022 nekk ñeent fukki at yoo xam ne kilifa yi dégg ngeen ni ko waxee si vidéo bi ñu koy ndokkeel di ko ziar di ko ñaanal yàlla mu dund ay téeméeri at ànd kook njaboot gi yàlla may ko wér ak waxtu wu nekk rek ñu ànd yàgg di ko gunge mu yàgg dañu jiitee barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke Mawlana Cheikhul Islam Ibrahima Niass lii moo nekkoon euh, ngan gi nga xamante ne nii sëñ bi dikk na arrivé taalibe def ko ak yéen incha allahu rabbi am na ay yeneen yoo xamante ay surprise la mu ngi ci biir danañ ci ànd ak yéen te incha allahu rabbi ni ma ko waxee sànq poñe sànq maam alaaji mu ndoxaa ni ma ko waxee ne ko incha allahu rabbi Renkoos TV daka def en direct dañu ci tànk bi ñu taxawoon ba léegi te incha allahu rabbi ñu ci am jort lu rafet ne lépp lu am fii seen xarit Seydina Moussa bi euh, si liggéey bi Seydina Aliou Guèye wa barakaatu ànd ak programme Kossy TV mbokku téléspectateur Kossy TV comme ni ñu ko waxee rek tey ñu ngi si gan gi waaye jóge ko Medina Baye ànd ak délégation bu am solo waaye fekk fi tamit ñenn si kilifa yi ni ko defee léegi ak Cheikh Maam Alaaji Muntaxa si noonu rek la ñuy ñëwee si turandoo yi euh, seen daara bu ñu fekk la fii rek nga téye jukki bi ni ko sa turandoo di defee depuis yoon bi ba léegi mu ngi ko téye di baax di la siyaare tey mbégte contentement bi nga xam ne taalibe yi dalalee lañ ko sëñ bi ak yër ko si buntu dëkk ba dugg ak moom si waatu laa ilaaha la ba si biir dëkk bi ban mbégte rek moom nga am pour jox ko mbokk àdduna bi alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi mbo nuyu mbokki jullit yi ak am du jàmm yi ak soppi yi di beral nuyoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla dajale ci ci barab yi sañ aaxibu bu tedd bi di am mbég ak kontante ak yaakaar ak yokkute si uysu suñ sëriñ suñu bàyyi suñ amdu jàmm suñ kóllëre suñ dolluwaay ci mbooram suñuy mbir moom lañ ñëw fekkli si ci bisam bii bu ootee bis bi nag yàgg na koo oote yàlla di ñu koy manloo ñuy fekk si di gis bis bi li muy def ci ñun ñu ngi ci xëytal mboolemi jullit mbooleem aajo bu fi nit indi yàlla faj ko dafal ñu tawféex ak yokkute yarabin ñëw nañ uy si oote bi def délégation ànd ak suñuy mbokk suñuy xarit suñuy am du jàmm ak suñuy soppe dalee ko ci alaaji ibrahim bi tey nga xam ne baayam mook sëñ aaxe bu ñes ñoo bokk mokkulandoo alxuraan ci kanam bàyyi ñu déglu leen alxuraan baayam am ak sëñ aaxe bu kóllëre gu dëgër bi ma ko waxee yoon bi rek mu doon itteem ñëw fekkle si ko ba day di présenté suñu mbokk alaaj sekk di sëriñ daara yàgg naa fuglu yoon wi di ci ànd seeg ñun démb ci xadara bi lañ dajee ma tudd ko ko rek mu ne pare na pour ñëw bokk seeg man ñi ànd pour ñëw ci yokkute boobu ba tey it duñ fàtte Cheikh Ahmed Tidiane Gueye Serigne Daara mi nga xam ne lépp luy baax féetale na ko boppam lépp loo xam ne danga koy ittewoo ci lu baax boo ko ci soxlaa rek gis ko ci bañ jóge moom it ànd na ak ñun ñëw lañu suñu rakk àllu daraame ñu la bokk ak bi ak Seydi Barham Jaase Seydi Barham Jaañ nga xam ne mi ngi yaroo Medina ci kër Seyda Xadi Faati Ñas nga xam ne boo ko gisee rek gis nga jëmu Medina ci yar bi ak dal gi ak mën a joxe teggin te loolu utut ñum ko berale kum gis rek loolu lay wane ci yow ñooñu ñoom lañ ànd tey ci mbég gi ñëw di ànd ñoom sant yàlla di ñaanal sëriñ bi sëñ aaxi bi yàlla dolli ko may fan wu gudd wa ànd ak barke ndax yaakaar la ndimbal la ci xeet wi ndimbal la ci askan wi ndax waxtaan naag moom mu di may soñ ci yoo xam ne te ni ma koy defee la koy defee ndaw yu bari noonu la koy defee ay toomaam ba bis nee na ma képp koo xam ne jokk nga ci moom rek daf laa beralal ñaan di la koy ñaanal te loolu ñu ngi koy gis ñu ngi koy yaakaar ci moom bu baax a baax a baax ñun nag su ñëw ak bopp kóllëre la goo xam ne doxoon na sama digg ak sama baay tur wi nag mooy li koy firnde waaye loolu sëñ aax bi yàqu ci dara weer semaine bii passé rek daagu na ba sama kër indil ma teraanga di téye kóllëre googu sama digg ak diggam ak sama baay ànd bu ñu àndoon lépp luñ ciy def lu ñuy jéem la rek waaye mënuñ ci dara liñ man mooy ñaanal ko yàlla yàlla may ko fan wu gudd wu ànd ak barke wéral ay cëram def jàppandal ci yoon wi mbooleem ku fi jëm si yàlla indi la ci jàmm mboolem lu fi génn ci balluwaayu xam-xam balluwaayu leer yaatal dund li ci mbaax ak tiyaabo yëpp yàlla defal ñu ko ci mbaax yàlla ak yonent bi di sant mbokk yi ak am du jàmm yi di ñaanal xalifa bi di ñaanal saydi imaam di ñaanal madina yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama OTTV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak Baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa OTTV yàlla